li ci gën a metti lépp moo di ay julliti kese ñoo koy def bu fekkoon day kuréel boo xam ne ay jullit lañ bee kuréel duñ ay jullit boobaa sax ñu neex a comprendre tuuti waaye ñaari kuréel yépp ay jullit lañuy woote woo ñaari kuréel yëpp ñu wax ni ci ay tarixa lañ aju nga xamante nii weeru koor teru na waxoon naa ko lu jiitu koor gi waaye xam ngeen ni koor gi dafa gën a exagéré naka jëkk daanaa wax ca koor ya ko jiitu woon ni lii day buñ ci waxul jëmut kër te mën naa indi ay catastrophe loolu ñuy sàgg ñuy yàgg topp waxtaanu minhajul abidin ilal janna xam nañu ko waaye yi xew ci réseaux sociaux yi ren dafa gën garaaw ndax dafa yegg ci di saaga wàlliwu yàlla yegg nañ ci di saaga wàlliwu yàlla di tànc wàlliwu yàlla di xas wàlliwu yàlla di tuutal wàlliwu yàlla na auzu billahi mina moo tax kon ñu nañ ci waxtaan ñu tuddee tomb bi ad diinu an nasiha sallallahu alayhi wa moo ko wax ci addis ngir yàlla phénomène bi naka jekk histoire xamoon na ko ci diggante al yahud wa nasaara al yahud wa ko daan faral di misaal ci diggante PS ak PDS bu ñu masaan di waxtaan ci diggante alxawsu wal xasrëj ma ni alxawsu wal xasrëj mu ngi meloon ni ca jamonoy madis mu nawara diggante alxawsu wal xasrëj mu ngi mel ni fii ci Sénégal PS ak PDS en l'époque man waaye ba tey boo ñëwee ci turuux yi ak turuuxu tasawuf yi diggante tariqatu wa tariqatul muridiya ñoom dafa mel al yahuudu wa nasaara diggante yahoot ak nasaraan nañu daan def nañu daan doxale al yahuud mi nasaraan ni ko ci dara booy dee di dem safara sa giddi du dara sa njiit du dara du ngeen dara nasaraan ni déedéet yéen al yahuud yéen a nekkul ci dara bu ngeen di dee dem safara ñoo leen gën sëriñ seen sëriñ du dara suñ sëriñ ëpp martaba seen sëriñ suñ sëriñ ëpp daraja seen sëriñ bu ngeen di deeri dem safara mani diggante ak turuuxu tasawuf waaye laa siyama al muridiya a tariqatul muridiya wa tariqatu tijaaniya al quraan daf nu ko misaal wa xaalat al yahuudu laysat nasaara ala shay wa xaalat nasaara laysati yahud ala shay wa hum yatlunul kitaab suratul baqara borom nee na yahud yi day taxaw na ñu ni nasaraan yi sunu sëriñ moo ëpp daraja seen sëriñ sunu sëriñ moo ëpp maqaama seen sëriñ sunu sëriñ ku ko gëmut doo dara sunu sëriñ ku ko toppul doo dara te boo dee safara nga jëm nasaraan yi ni leen tufu kàcc ngeen ñun ñii la sunu sëriñ am daraja ñun ñii la sunu sëriñ ku ko toppul dem safara ñun ñooy borom sëriñ bu mag bu matale bi suñ borom ni xoolal ma ji wax te ñoom ñëpp day kenn ku ne ci ñoom waxum yatloonul kitaaba bu dee yahood jàng nañ tawraat ma wàcce ko ci Muusa bu dee nasaraan yi wax loolu jàng nañ injiil ma wàcce ko ci Isa alayhi salaam ñu gis ni wax naa ca tawraat ni képp ku gëm Muusa te muy dëgg dara dox sa digg àjjana ku gëm Isa muy dëgg dox sa diggante àjjana misaal moomu boo ko indee ci tarixatu tijaaniya kasaalika noonu la mel ku gëm Cheikh Ahmadu Tijaan te muy dëgg dara doxul sa digg àjjana ku gëm tarixatul muy dëgg dara sa diggante àjjana kon lu fi jar kenn ku nekk naan sa morom ñi ko ci dara ba ñu àgg ci di tëkkoonte ak a joxantey dog ak a waxante lu bon ak a lu ko waral moo di ay média yoo xam ne nii dañuy jël sëriñ si daanaka xaw li def ay mbëri làmb coppet ci bii ndom ci bii xam ngeen ni ñun bañuy gone nekk ci daara yi daanañu gis ni ñaari xalel boo masaale bëgg xeex da nga naan këmëx ci bopp kii mu coppe ci bii ndom ci bii daan ko yow jël naa sa kawar jox naa ko kee te ñu nuwoo ko jël su ko defee kooka it dem di jëli karawam kenn ko doo ko jël ñu ne rinkun di xeex seytaane rajim yooyu le noonu lañ daan def naka noonu it boo xoolee média yi li ëpp ci ñoom noonu lañuy def turuux yi ak turuuxu tasawuf yi mooy coppet ci bii ndong ci bii li la koy xamal mooy waa ji ñuy invité bala ñu ko invité daañu publier ni bi sàngam diwee ñëw diw sàngam moomee mboolem ay fansam di ko woo moo xam diw mooma ci atarixatu muridiya la bokk bu fekkee moom lañu invité mboolem ay fansam nga koy tàmbalee woo naan ko boo demee na saf boo demee bu dara sedd boo demee na mitti fu mu gën a saf rek teg ko fa wallahi dañ leen di téléphoné di leen wax loolu man xam naa ci dara ka bokk ca tarixatu tijaaniya buñ ko invité moom it noonu la ñu ne ko gis nga sawaay barki démb de dégg nga lim wax boo demee na saf nañ ko ko samañ bu la ko kenn dàq laa xadarallah wala saman mu ndax lii mooy yoonu si du Bamba mu ndax lii mooy yoonu si Ahmadu Tijaan yi bu ko defee bu ñëwee nga gis ki bokk ci tarixatul muridiya di tañ ci sëriñub jàmbur di ko suufeel di ko gaaral di ko doyedal bu ko defee bu émission ba jeexee moom ñu doon def émission bi buñ ko saaga woon moom ci boppam yem ca kon duñu metti dara du duñu ci déranger waaye dañ koy saaga saaga dañ ko fi weesu saaga kilifaam nga jiite tarixa boobee looloo ci metti mooy gaañu duñ la saaga yow déedéet sa kilifa gi nga yëkkati teg ci kaw kilifa jàmbur kilifa googa la ñuy daggali saaga bu dee tijaan bi noonu la alquran daf na waxoon ni wala tasabu lasina yad'una min duni llahi fa yusabu llaha adwan bi gayri ilmi fa yusabu llaha adwa bi gayri ilmi loolu ma nga suuratu anaam suñ borom daa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko xamal ni li ñuy tuddee pas-pas dafa foor ci borom pas-pas donte lam fas du dara mu ne mu ne gis ngeen laataak uusaak manaataak saalis a oxra nga xam ni ay bant képp la yoo xam ni ñu gëmul yàllaa ko yett di ko jaamu mu ni waaw mu ni gis nga sa taalibe yi nga xam ni dañuy xas yàlla yahuud yi yàlla yéefar yi di leen tuutal di leen sewal di leen saaga mu ne ah mu ne ko nee saagaate yàlla yi yi lu tax mu ne gis ngeen saa bu ngeen saagaa yàlla yi yi yéefar duñ fayu ci yéen man yàlla la ñuy saaga man yàlla kon nag bu leen saagaate seen yàlla yi saa bu ngeen saagaa yàlla yi yéefar yi yéefar yi duñ duñ fayu ci yéen de buñ doon fayu ci yéen du am du am gravité waaye feeñ leen naan ñukk saaga ma man yàlla kon nag bàyyi leen yàlla yéexoot yi ngeen di saaga yàlla yéefar yi ngeen di saaga wala tasubu lasina yad'una min dunillah fa yasubbu llaha adwa bi xayri ilmi waaw bi xayri ilmi suñ borom ni ñu ngi may saaga de waaye ñàkk xam a tax ñu may saaga bi xayri ilmi naka noonu kii ni nga xam ni moom mee nañ dañoo tànc sëriñam wala dañoo suufeel sëriñam wala waxkat bi daa doyadal ab sëriñam ba tax muy saaga walliwu yàlla daal di poste ci internet bi nausu billahi min ay ko xamoon li ci wàlliw suñ borom nee na ci addisul qudsi man aadali waliyan faxat asantuhu bil ard képp koo xam ni noonu na ci sama wàlliw yi benn wàlliw man yàlla dekk naa ko ger ba yowmal xiyaam na yóbbu ko safara képp ku noonu benn wàlliw ci sama wàlliw yi man yàlla dekk naa ko guerre ba yowmal xiyaam ma yóbbu ko safara alquran dañu woon laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi wa xaaloo samina wa ataxna ba ko gaayo déggee suñ borom dani yéen doom aadama yi laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi sama yonant yi sama yonant yi bu leen def ay mbëri làmb sama yonant yi bu leen def ay mbëri làmb bokk leen gëm ñëpp xam ni ñoom ñëpp maa leen bind darajaal leen nangu leen ni kenn ku nekk lam am ci daraja man yàlla maa ko ko jox kon nag bu ci kenn ci yéen di tañ ci benn yonant wala mu di ko tànc wala mu di ko suufeel laa bay bayna ahadin min rusulihi loolu walaabal ci yonent yi moo walaabal ci nit yàlla yi moo walaabal ci wëlliwu yàlla yi benn wëlliwu yàlla boo ci weddi weddi nga yëpp ni nga xamee ni boo weddee yonent yàlla Muhammad weddi nga Muusa weddi nga Isa weddi nga mboolem yonent bu mas yàlla mas a yónni naka noonu boo boo gisee jullit ñi yàlla sant leen ñu gëm yonent yëpp mooy benn yonent boo weddi weddi waale nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même yonent boo weddi rek weddi nga ñëpp wàllu yi tamit noonu lañ demee nit yàlla yi noonu lañ demee benn nit yàlla boo ci weddi weddi boo weddee si Ahmadi Tijaani weddi nga sëñ Tuubaa boo weddee sëñ Tuubaa weddi nga Sidi Alaaji weddi nga Sidi Alaaji Malik weddi nga si Ahmadi Tijaani koo ci weddi rek weddi nga ñu ci des ndax ñoom ñëpp ñoo bokk fenn fenn fu ñu soy te mooy ci néeg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam danaa ko wax ci kanam laa nufariqu bayna ahadin min rusulihi waaye gis nga gaañu baax na ñoom bañ ko déggee xam nga luñ tontu yàlla waxaaloo samina waa tax naa yàlla li nga wax ñu ko def yàlla li nga wax ñu ko def dootuñu jéem a séparé sa wàlliwu naan benn wàlliwu gën benn wàlliw ñun daal bu ñuy waxati léegi darajey sunub sëriñ la ñuy wax rek waaye nag ñu sewal sëriñub jàmbur laan euh, xaaloo samix naa waa tax naa xaaloo samix naa waa tax naa yàlla li ñu wax dégg nañ ko dootuñu sewalati benn yonant di yëkkati benn yonant teg ca kawam ñun daal bu ñuy waxtaane darajey suñu yonant ak i maqaamaam danañ ko waxtaane waaye nag bu buñ suufeel beneen yonant mas ngeen a dégg Seydina Bakari Sadiq muy waxtaane darajey rasulullahi ba suufeel Isa mas ngeen dégg sayidna omar di waxtaane darajey rasulullahi ba suufeel yont yàlla moussa mas ngeen a dégg sayidna aliyun di waxtaane darajey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba suufeel ibrahima mas ngeen a dégg sayidna ousmane di waxtaane darajey muhammad rasulullahi ba suufeel yont yàlla yanqooba wala ayooba mas ngeen ko dégg waaw lan moo tax saabooy booy waxtaane sa darajey sëriñ suufeel sëriñub jàmbur tànk ci sëriñub jàmbur te yaakaar ni yaa ngi ci dara ku la wax ndax na la ku la wax ndax na la ñooñu la alquran di junji nee na lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum ahyunun laa yabsuruuna biha wa lahum azaanun laa yasmacuuna biha ulaayika kal an'am bal hum adallu ulaayika humul xaafiluun ñu nga sóoratu ahraaf suñ borom ne na di jéem a séparé wàllu yàlla yi di tuutal kii di yëkkati kee xulóobum laa yafqahuuna biha boo yoroon seeni xol xamuñu ci yàlla dara xulóobuhum laa yafqahuuna biha boo yoroon seeni xol xamuñu ci yàlla dara ku xam yàlla doo tuutal walliwu yàlla wala hum ahyunu laa yabsuruuna biha amuñu bëti baatin seen bëti baatin gisuñu daray baatin bëti neen lañ yore Ablaye Mbaye Peex nee na bëti baatin bokkut ak borom bëti neen borom baatin bokkut ak borom bëti neen loolu Ablaye Mbaye Peex wax lay mbay peex nee na borom baatin bokkut ak borom bëti neen suñ borom nee na gaa ñu di suufeel yenn wàllu yi di yëkkati di daraja mu ni wa lahum ahyunun laa yabsuruuna biha mu ni wa lahum asaanun laa yasmauuna biha ñooñu seen nopp bëgguta dégg dëggug yàlla gi dëggug yàlla gi mooy wàllu bu nekk yàlla may na la lam la may wàllu bu nekk yàlla darajaal na nam la darajaale donte nag nit ñi mënuñoo yem nag donte wàllu yi mënuñoo yem suñ borom ni yii gaa yi nga xam ni seen xol yi xamuñu yàlla seen bët yi duñ gis dëggu yàlla gi amuñu bëti baatin seen nopp yi duñ dégg dëggu yàlla gi ulaayika kal anaam ñee ne ñoom nag yi ngay romb ci mbedd mi ñooyam ulaayika kal anaam ñoo bàyyi ma yi ngay romb ci mbedd mi ñooyam ba yàgg mu ne ah déedéet hum adall ñoo yës bàyyi ma ñoo yës bàyyi ma ñoo yës bàyyi ma mu ne xam nga lu leen ko yóbbee ñu nu sàggan sàggan rek ma ne kon mbaaxoog sëñ Tuubaa gi mënees na cee xëy di wax di xëy di wax di xëy di wax ba xëy fanaani bàq ya te mbaaxoog sëñ Tuubaa gi du xaaj du xaajaat mbaaxoog sëñ mën nga cee xëy di wax xëy di wax subaak ngoon guddeeg bëccëg doo noppalu ba xëy dem bàq ya te mbaaxoog sëñ Tuubaa gi day mel ni benn benn gutu ndox boo jëlee ci géej la cay des mbaaxoog si Ahmadi Tijaani ji mën nga ci xëy di wax di xëy di ci wax di xëy ci wax ba xëy fanaani bàq ya te doo tuutal beneen waliyu yàlla te doo jeexal mbaaxam gi mbaaxoog si Abdu Xaadir Jilaani ji kasaalika loolu la ñu Cheikh Abdou Lahad mu dëgguma doon junj ca waxam ja discours am ba Cheikh Abdou Lahad mu dëgguma nee na radiyallahu taala anhu nee na murit xaadir tiijaan ñett ñu bokk nday ak baay lañ waxul sax ñett ñu bokk nday dong wala ñett ñu bokk baay dong déedéet dañuy ñett ñu bokk nday ak baay lañ waaw mu ni ñett ñu nday ak bokk nday ak baay ana nan nga ca mën a seppee kenn tam ko te tamaale ñaar ña ca des loolu mooy xel nanguwu ko loolu mënta am ñett ñu bokk nday ak baay nga seppi ca kenn tam ko te tamaale woo ña ca des Cheikh Abdou Lahad loolu mënut am mu ne xaadir tiijaan murit noonu la mel ñett ñu bokk ndey ak baañ lañ bokk ndey ak baay lañ mbaram nee ci téeram bu tedd bu màgg bi yaa si allazina amanu iza naajaytum sa tatanaajaw bil ismi wal udwaan wa maxsiyati rasul e eh, yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla bu fekkee seen ngëm gi dëgg la bu ngeen demetee ci plateau yi bu leen fa wax luy jur bàkkaar bu leen fi wax luy jur noonoo bu leen fa wax luy tax ñu dugg ci réseaux sociaux yi di saaga seeni kilifa ak di leen sewal ak di leen tuutal yaa ayyuha alladina amanu iza naajaytum fala tatanaajaw bil ismi wal udwan wa masiyati rasul bu ngeen toogatee ci plateau yi télévision yi bu leen fa wax luy jur bàkkaar wala luy jur noonoo wala luy jur mooy yàlla ak yonentam te xas wàllu yàlla mooy yàlla la ak yonentam alayhi salaatu wasalaam suufeel wàllu yàlla mooy yàlla la ak bi sallallahu la ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci plateau yi ko def iza tanaajaytum falaa tatanaajaw bil ismi wal udwaan wa maxsiyati rasul mu demee te ci plateau yi bu leen fa tànci wala ngeen suufeel fa sëriñu jàmbur muy ndax loolu li muy jur rek mooy noonoo jullit ñu noonoo képp lay jur wal ism ak bakkaar bu dul jeex wa masiyati rasul ak mooy yonant bi sallallahu alayhi wa mu mel ni lisaanu xaal dafa laaj suñu borom ni ko waaw kon buñ demee ci plateau télévision yi duñ waa wax mu ni watanaajaw bil birri wa taqwa wa taqla allasi ilayhi tuxsaruun bu ngeen demee tey ci plateau yi ñu ne ah mu ni wax leen fa mbaax mën nga wax sa mbaaxuk sëriñ bay laal asamaan sa te doo tànc kenn doo tànc kenn doo suufeel kenn mu ni waaye nag booy wax mbaax wa taqwa na ànd ak yàlla de li ngay wax na am ay sources yu wér te bañ a wax rek ni mag mu baax nee na ma woon déggoon naa ci mag mu baax mu ni li ngay wax na am source yu wér mooy wa taqoo laaxa muy ndax na la wóor ni bisa ngi ñëw daañu la taxañ ci juróom-ñaari mètre percal de loosi la ci yàlla de wa la laa alla si ilayhi tuxsaruun de bisa ngi ñëw yàlla dana la dekkal taxawal la bis penci kon nag wata naajaw bil birri wa taqwa boo demee tey ci plateau mu ni waxal aw yiw waxal jàmm waxal luy jur jàmm waxal luy jur jàmm gis koo xam ni nee na ci tarixatu tiijaan yala bokk wallahi la muy wax ca di Ahmadi Tijaan jublu ca suufeel beneen walliw bu Cheikh Ahmadi Tijaan dekki woon aw yat lay jël ki toog ci plateau di wax ci sëñ Touba loo xam ne la muy wax jublu ci lu dul suufeel ma di Tidiane wala Abdu Xaadir Jilaani bu sëñ Touba dekki woon aw yat lay jël ah sëñ Touba ko waxal boppam sëñ Touba nee na falaa tuxaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illa allah yéen mën ngeen yaakaar man sëñ Touba képp ku ngeen dégg mu seede ni yàlla rek ay yàlla yonent bi ma mu naa mu ni bu leen ko defati noonu bu leen ko jàppam noonu mukk bu leen ko def mukk adversaire def leen ko ni seen bopp waa léegi nag yow yow téléspectateur bi nga xam ne yaay seetaan télévision yow sëñ Tuubaa nga war a gëm wala bokk orateur bi nekk ci plateau télévision bi nga war a gëm maa ngi lay laaj yow sëñ Tuubaa nga war a gëm ay waxam wala waxi waa ji ci plateau bi ci war a gëm waxi sëñ Tuubaa waxi sëñ Tuuba bu la kenn yóbbaale ci luy tax ngay noonoo nit yàlla déedéet si Alaaji Malik nee na rahimahullah nee nafa fa asimu jami al awliya kama bihi amara sul wafa Sidi Alaaji Malik nee na yéen bu fekkee ni man ngeen yaakaar maa ngi leen di digal fu ngeen dégg wàllu yàlla nu ngeen ko màggal ngir yàlla fu ngeen gis wàlliwu yàlla na ngeen ko màggal ngir yàlla waaw ma ni yow waa ji ci palaato bi ngay gëm wala alaaji Malik ngay gëm alaaji Malik nee na foo dégg wàlliwu yàlla na ko màggal ngir yàlla faasimoo jami al awliya kama bihi am rasulu comme ni ñu ko yàlla digalee yàlla moonu digal ñu màggal wàlliwu yépp yàlla moonu digal mu ne comme ni ñu ko yàlla digale nañ ko defee noonu fu ngeen dégg wàlliwu yàlla na ngeen ko màggal ngir yàlla Sidi Alaaji Malik moo ko wax rahimahullah mu ay ay taalibe moom Seydi Alaaji Maalik wala takunu ka lasiina farraxu mislal yaud rabbuna al muwaffaqu mu ne yéen tiijaan yi man Alaaji Maalik maa ngi leen di digal ni bu leen mel ni yahoot ak nasaraan yahoot ni nasaraan nekkoo ci dara nasaraan ni yahoot nekkoo ci dara Alaaji Maalik ni bu leen ko mel ay waay waroon naa dekki ba dellu siwaat ba dégg li gaa yi wax ci réseaux sociaux àgg nañ ca mu waxoon ni bu leen ko def day gaa yaa ngi koy def wala takunu فالذين فرقوا مثلا يعود ربنا الموافق bu leen mel mukk di yahoot ak nasaraan foofa lañ yegg de plateau kenn ku nekk naan sama sëriñ sama sëriñ sama sëriñ abuñ ca mu baax boo ne woon sama sëriñ a gën yàlla kenn mënu ci dara kenn du ko weddi dañ lay bàyyeeg say wax rek waaye nag bu fekkee da nga ni ku dul sama sëriñ bu dara mooy yaa saagalu sa sëriñ ndax keneen dana jóge fee taxaw ni mayit ku sama bant bi ma gëm doo dara ku dul sama bant bi ma gëm doo dara boo weesoo foofa it mu weesu foofa bokk na ci indi coow xam ngeen ni sëñ Moussa Ka ba mu nee ma jóg way ndaama la jëtti waa Faas ca jamonoom xaala bi mu toll woon di ko wax mi ngi toll woon ci maqaamam li ñu tudde almahabatu saati almahabatu saati borom xam-xam yi dajaloo nañ jamono ñoom ñëpp comprendre nañ ko ba waxuñu ca dara waaye terewul taalibe waa faas tont nañ ko ca jamono boobee xam nga booba jamono média amul de waaye taalibe waa faas jël nañ seen xalima tontu sëñ Musaa Ka ca jamono booba muy li yàlla waxoon ni leen di euh, saaga yàlla yéefar yi su boobaa dañuy saaga yàlla ji leen bind te moom leen yéen waaye bu dee jamono bii nga xam ne réseaux sociaux yaa ngi fi moom day gën a garaaw moo tax borom xam-xam yi bari jaar nañ fi danañ waxtaan ba bàyyi waxtaan daanaka duñ tudd ab yaat yooyu duñ ko waxtaane wala buñ koy tudd dañ koy tudd rek jàll duñ ci indi benn détail duñ ci indi benn détail maa ngi fàttaliku Baye Sam rahimahullah mas nañ ko laaj ci benn wëlliw benn nitu yàlla fekk kooku lam ci jublu woon mooy rambaaje mu daal di koy enregistré ci baysam Sam waxee ba nit mu daal di jël kaset ba ko nga xam ne loolu jural na ko ñu di ko woo téléphone di ko saaga guddeeg bëccëg moom Baye Sam waaw lii lay li ko walal du dara lulu rek seytaane moo baaxoo waxtu yàlla ba nee boo xam ne jullit ñi nar nañ caa naan ngir jariñu ca seytaane jóg ngir sakk teen bi mun waaye ki def lii wallahi duma ko ko baal te balaa dee dana ko gis waaja man xam naa ko toroxtaange la mujje toroxtaange la mujje toroxtaange la mujje kon nit yàlla yi sëñ Touba nee na képp kenn ci ñoom mu ngi ci dëgg man nag waxe sëñ Touba laa gën a gëm ndax sëñ Touba moo ne mboolem nit yàlla ñu ñoom ñëpp ñu ci dëgg fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmadi tijaani aw liswaahuma min al aqtaab is kulluhum qat an ala sawaab waat na ni ñu ci dëgg la wax mu moom sëñ Tuuba yaa xam wirdu Cheikh Ahmadi Tijaani nga am walla wala wirdu Cheikh Abdou Xaadir Jilaani nga yore wala yaa xam wirdu Cheikh Ahmadou Bamba nga yore ñun waxuma sax ñooñu nga xam ni nii sëtu yonent bi lañ ndax mboolem mboolem wirdu yëpp sëtu yonent bi lañ direct bu dee Cheikh Ahmadu Tijaani sëtu yonent bi la bu dee Cheikh Abdou Xaadir Jilaani sëtu yonent bi la bu dee Cheikh Ahmadu Bamba sunu sëriñ bii sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooñu nga xam ne yonent bi moo leen feeñu joxal leen boppam wérd mu ni képp kenn ci ñoom koo ci jàpp ci aw wérdam su dana la wommat ba yóbbu la ci yàlla sëñ Tubaa ni waxuma loolu waaye aqtaab rek walliw rek walliw rek walliw rek bu la joxee tur yàlla nga jàpp tur yàlla wa tëkkoo bare mu yóbbu la ba ci yàlla mi ngay seet walliw rek laa wax waxuma sax nag ñooñu nga xam ne ñoom dañoo sos ay tariqa nga xam ne ci ndigalal yonent bi lañ sosa seen tariqa yooyu mu ni waxuma ñooñu waaye walliw sax laa walliw rek woo xam ne amul ndigalal sos tariqa waaye turu yàlla mu jox la ko nga defee ko nam la ko waxee nee na booy soob yàlla ngay fanaani ci yàlla aw lis waaxuma min al aqtaab la wax loolu sëñ Tuubaa wax képp ku ñëw bëgg laa suufeelal waxi sëñ Tuubaa jooju moom nga war a seetaat mbiram moom nga war a teg fee ni tege moom nga war a teg fee ni tege si Ahmadi Tijaani radiyallahu anhu nee na iza samihtum anni shay'an fasimu bi misaani shar'i fama waafaqahu faqisuhu wa ma xaalafahu fatarakuhu si Ahmadi Tijaani nee na képp kenn ci yéen kuy dox ci jamono ba dégg ñu ni Cheikh Ahmadi Tidiane nee na nangam Cheikh Ahmadi Tidiane nee na jëlal wax ja nga yóbbu ko ci plateau Sharia bés ci lu Sharia balaa si Sharia Cheikh Ahmadi Tidiane nee na jëlal sama wax jooja ñu wax ni maa ko wax nga jël ko teg ko ca balaas ba nee na boo ko tegee ca balaas ba mu dëppoo sunna si yonant bi sallallahu alayhi wa jëlal maa ko wax waaye nee na boo tegee ca balaas ba mu wuuteeg sunna si yonant bi sànnil du samay wax man Cheikh. kan moo mën a taxaw ni Cheikh Ahmadi Tidiane moo a digal may may may may may may may yëkkati ay darajaam ak i maqaamaam di tànc beneen wàlliw di saaga beneen wàlliw di suufeel beneen wàlliw kon ni ko sëñ Touba bañe noonu la ko Cheikh di Tidiane bañe moo tax mos na maa dajeeg menn mbokk ci menn réew mu ni ma bu dul li nga xam ni moom lañu suñu tarixa bi tere kon bu ma ñëwee Sénégal dinaa la seet si ma ne lu leen tarixa bi tere lum doon mu ni si Ahmadi Tijaani def ni képp koo xam ne nii dangaa yore wirdu Tijaan amuloo droit di siyaara ji wàllu yàlla bu bokkul ci tarixa bi ma ne ko seex waxu ko de mu mu dar gémmiñ gi ni mu waaye sëñ bi yow la ma ne ko seex waxu ko dañ ko ko waxal de waaye lii seex waxu ko ku bokkul ci tariixa bi di nitu yàlla nga xam ci moom yàlla dégg ci moom yàlla seex ni la bul ko siyaara ji ma ne ko du waxi seex munu ma foo ko teg ma ne ko man maa gis fu seex wax ni jëpp wax juñ la wax ni maa ko wax na nga jël wax ja teg ko ci bal plateau sharia yi ci balaasi sharia bu dëppoog sariya jëlal maa ko wax bu wuuteeg sariya wattal du saay wax te ma ne ko wax jii ngeen wax ni seex a ko wax wuute na ak sariya ni penkoog soowu mu ma nu mu wuuteeg sariya ma ne ko du ñoo ngi jàng ci alxuraan man mu alquran innamal mu'minuuna ixwatun fa na bayna axwaykum yéen jullit ñi ay frère ngeen ay mbokk ngeen na ngeen di siyaarante di nemm konte di jaxasoonte kon nan la seex di waññukuwaat di wax ni ku bokk ci sama tarixa bi amoo sañ-sañu siyaara ji walli bu bokkul ci tarixa bi ma ne ko du waxi seex ma ne ko du alquran moom wax ni waxtasimoo bi ablilahi jameen wala tafarraqoo kon nan la seex mën a waxee loolu ma ne ko ndax bu boobaa loolu bu ko wëlli bu bokkul ci tari bi tarixa bi xamee dogoo daal di am ma ne ko kon nañ ko seetaat de lii du waxi seex de du waxi seex de te siiw na lool nag ñu koy wax kooku ci menn réew lañ masa a tase ci réewi Afrique yi mu wax ma lu mel noonu waaye lii laa ko tontu woon ma ne ko lii du waxi seex waaye siiw na lool waaye seex moom li wax mooy lépp lu ngeen dégg ñu ne seex a ko wax nee a tegal ci plateau sharia bu wuuteeg moom rek tegal fële du saay wax man seex du saay wax man seex de nit yàlla yépp noonu lañ mel lépp loo xam ne nii woote na ak sharia ñii la suñ ko wax sànnil du waxi suñ diw de dañ ko ko waxal rek sànnil fële du waxi suñ diw lu wuuteeg sharia du waxi suñ diw kon nitu yàlla ëpp naa tànc ëpp naa xeeb ëpp naa bañ ëpp naa wax wax ju ñaaw jëme ci moom ndax seen der yi ñoom nitu yàlla yi yàlla da koo posone da koo poissonné der maanaam wàllu yi wàllu yi yàlla dafa poissonné seen deret ko laal gisuma la mbaaw ku ko laal rek gisuma la mbaaw ñoom wàllu yi yàlla ndax yàllaa ko wax yàllaa ni ku ku ku tooñ sama wàlliw ku noonoo sama wàlliw mu ne mu ne naa la guerre yow préparé déclaré naa la guerre <laughs> yàlla na kum déclaré guerre xam nga sa mujj fan la ilaa jahannama laa qadar allah wala saman mhm. kon ni wàlliw yàlla yi subhaanahu wa taala leen tànn ni mu tànn ay yonantam kenn ku nekk mu may la daraja ju rëy rëy rëy naa ko wax ci kanam si Ahmadu Bamba sun sëriñ ba nee na waxlam bi anna muqida la si ahab aw asima allahu li suxtihi intasab wa annahu alayhi su ixtiraadi li kawnihi bi saaka xayru raadi Abdul Xadim nee na radiallahu anhu mu ne maa ngi lay xamal yow doomu aadama bi mu nu rikk waay bul bañ soppe bi yàlla rik waaye bul bañ soppab yàlla waxlam bi anna mubqida lasi ahab aw asima allahu li suxtihi intasab mu ni képp koo xam ne fekk nga ko yàlla bëgg nga bañ ko mu ne ah mu ni yàlla dal na ci sa kaw mu ni ndax loolu kat wa annahu alayhi su ixtiraadi mu ndax bañ nitu yàlla bañ nitu yàlla tappaas yàlla la wallahi sëñ Tuubaa ko wax sëñ Tuubaa nee na bañ nitu yàlla loolu tappaas yàlla piir la ñu ne ko lu tax mu ne li kaw nihi bi saaka xayru raadi yawut kon daa mel ni li yàlla def dalaa neexut ak a bari def defu yàlla mu naqari ab jaam bu yàlla bind bam di ko jaral xëy gont dem ci buxaaba ngir bëgg def defu yàlla booba dañ rek ñun loolu tappaas yàlla la jaam bu yàlla bëgg defal ko tiraanga defal ko barke defal ko daraja nee na nga jóg taxaw temm ci ni loolu bu mu fi amee ñun loolu xam nga ni tappaas yàlla la de ñu ne ko tax mu daa mel ni yàlla def dalaa neexut def defu yàlla la neexut daa bokk ci maqaamay nit yàlla yi li ñuy tudde rida lu yàlla def mu neex la lu yàlla def rek mu neex la lu yàlla dogal mu neex la lu yàlla dogal rek mu neex la suñu borom rabbi si jàlla bu bëggee ab jaamam day woo Seydina Jibril alayhi salaam ko yaa Jibril mu ne ko labbayka yaa rabbi mu ne ko damaa bëgg diw aca bëgg ko Jibril ni ko yaa bëgg naa ko ba fa bëgg di yem ko demal nga informel ma malaaka yëpp nee leen damaa bëgg diw ñoom ñëpp nañ ko bëgg Jibril ñëw ni malaaka yi suñu borom nee na daa bëgg diw yéen ñëpp bëgg leen ko malaaka yëpp ànd ni bëgg nañ ko de suñu borom ni Jibril aca wàccal ci kaw suuf boo demee nañ ko def ci foraas yi def ko ci teen yi def ko ci dex yi nit ñi naan ko moo tax ngay gis léeg-léeg doomu aadama yi waññi ko bëgg nit bëggeel goo xam ne nii amul fu mu yem ñoom ñëpp ñu àndandoo bëgg ko fekk dogal suñu borom la suñu borom ko bëgg ba noppi digal ko jibril alayhi salaatu wasalaam mun yow mi nga xam nag dangaa bañ nitu yàlla boobu yàlla bëgg nitu yàlla boobu yàlla màggal te mooy aw azimallahu yàllaa ko bëgg ba noppi màggal ko jox ko daraja takkal koy garaat yow nga ne loolu mu fi amee nee na sànjab yàlla dal na ci sa kaw mu ndax loolu tappaas yàlla la ak ñàkk gërëm dogalu bi yàlla nee na ku noonu nag fan lay mujj mu fa saara qalbuhu aliman muktama waaye daf ne fa saara qalbuhu aliman muk muktabada mukk mada mukk mada baatu kamada la jëfandikoo mukk maa mukk mada mooy lan alkamat mooy nit koo xam ne foo ko fekk day dëkk ci njàqare ba këram muy faatu mën na am tiraanga ju nekk nag waaye tëriwul xol bi njaqara la feese bu ko waxee ak bu ko waxut fasaara qalbuhu aliman mukmadaa adduwan ni'matal ilaahi sarmadaa mu ni boo gisee xol bi di takk di jëfafëbi di mitti xol bu tàng fu mu toll du am jàmm du am salaam nee dara wër la dul addu wa nihmatal ilaahi sarmada mooy noonoo gin noonoo xéewalu yàlla ji mu defal jaam bi <coughs> waxoon naa ko ci bii sëriñ saaliw saw nelawee rahimahullah man am na ñoo xam ni bég nañ ca laa qadarallah wala saman bég ca ndax lu tax da daan déranger bég nañ ca sax ba mënuñu ko si gin ndax jàpp nañ ni ñoom lu ñàkk rek Saliou Sow leen ko xañ mu ne xol bu metti ngay deeyaale ndax waa jii nga bañ ndax nixma bi ko yàlla defal xéwal gi ko yàlla defal saa boo xëyee di jàkkaarloog moom te doo ci mën dara doo ci mën dara loolu dogalub suñu borom la rabbi sit wa jàll léeg-léeg nga noonu nit ba foo di ko tudd di wax ci moom lu safaan fekk booba li arab yi di wax arab yi dañuy faral di léebu ni nit ki ndekete ay noonam danañu ko publicité di ko yëgle ba ñëpp mujj xam ko ci làmmiñu ay noonam ci làmmiñu ay noonam wala yàlla xam na ko diw sàngam ñëw ni man daal xaw ma woon sax nag ni sa jumaa ji fi ngay jullee tabaski euh, ak korite mu ni benn waaye daal mu ñëw saa kër naan Moustapha Mbaye Sam daal day font moom daal ca daaraam ji rek lay jullee moom ak ay dongaam ak waa koñ ba mais ma ne ko ah mun waaw mu ne ko alhamdulilah rabbil alamin yow moo ko informé fa laay jullee ji ren nun kooku rek laa yàkkamte jullee ji daaraam mooy li arab yi di wax diw sàngam ñëw na fii ñu ni ne barab sàngam laa demoon doon siyaare ji kooku tudd la am lu mu wax ci yow ab safaan mu naa ma ne kooku bala maa amati jàmm daa koo gis kii mu naa waa ji wax nii xam naa ni noonoo tax mu wax ko waaye ndekete kii mu ma tuddal mu ni nag bi fii ba gis barab bi mënatumaa tëdd nelaw daanaka weer wu mu ñëw fi daanaka weer wu mu ñëw fi te daa demoon di siyaare ji barab sàngam dong kat ñu tudd fa waxub safaan waxub safaan mu loolu kooku xol bu mitti lay deeyaale ndax li yàlla dogal te neexu ko kenn munu ci dara day am rek fa saara qalbuhu aliman mukmadaa xadd wa nicmatal ilaahi sarmadaa si ahmad bamba nee na kafa bisa ayban wa sarran wa darar fala takun zal iqdi awdu lil basar sëñ tubaani loolu nag dafa doy sëkk sëkk sëkk ayib bay na sëkk ayib mooy noonoo xéewalu yàlla ku yàlla defal xéewal nga ni du fi amee nee na bay na ayib bay na aw ay bay na lor mu ni bu fekkee ni daal maa ngi lay digal ta ngay dégg sama ndigal man sëñ Tuubaa fala takun zal iqdi hawdu lil basar li gën a gàtt waxuma la nitu yàlla waxuma la kuy liggéeyal lislaam waaye dama ne mbindeefu yàlla bu ci bañ kenn sëñ Tuubaa nee man loolu laa lay digal mbindeefu yàlla yi bu ci bañ kenn bëggal ñëpp te yàlla tax wallahi man di bëgg naa ñëpp yàlla tax man bu naa ñëpp te yàlla tax rawatina nit yàlla yi nag te tereewul ma féete fi ma féete nag te féete fi ma féete nag mu ne bal asiman manil ilaaya asara bi fadlihi wattani bil munakara sëñ tubaa nee maa ngi lay dénk na nga màggal képp ko xam ne yàllaa ko tànnal boppam def ci moom la mu def ci moom mu nu màggal ko ngir yàlla muy ndax yàllaa def ci moom ngëneelam bi fadlihi lu alquran wax inna al fadle bi yadillahi yutihi man yasha yàlla nee na yiw mbaax gi baatin bi mbóot mi secret bi doon doomu ruug ji doon bàyyi ruwaam mu ngi loolu man yàlla maa ko ñëpp ci sama loxo di ko séddaleel saa bopp ku ma neex laa koy jox ku ma neex laa koy jox mu ne kon nag wajtani bi wajtani bil munaakara na nga moytandiku loo ci di ko jéema a kontar na nga moytandiku loo man ci di ko jéem a diingat na nga moytandiku loo man ci di ko jéem a suufeel wattani bil munaakara ku yàlla jox ngëneelam ba noppi nga ni du fi Sëñ Tuubaa ni moytu ko de wattani bil munaakara bal xasiman manil ilaahi asara ki yàlla tànn inna astafa adama wa nu an kay ñun ñëpp jàng nañ ko ci alquran yàllaay tànn yàllaay def mbiram waaw lu la déranger yàllaa tànn sëñ Tuubaa def ci moom lim def ci moom te wàññiwul dara li ko yàlla may wàññiwul dara ca la may si eh, Ahmadi Tijaani yi wàññiwul dara ca la may si Abdu Xaadir Jilaani lu la ci soxor fekkee li yàlla may Cheikh Ahmadi Tidiane yi wàññiwul dara ca lam may sëñ Touba wàññiwul dara ca lam may Cheikh Abdou Khadir Jilani yi loola ci soxor fekkee li yàlla may Cheikh Abdou Khadir Jilani yi wàññiwul dara ca lam may sëñ may Cheikh Ahmadi Tidiane yi loola ci soxor fekkee loola ci soxor fekkee ba nga bëgg cee suufeel kenn yëkkati ka ca des moo tax moom sëñ Touba mu ni wala yakun fadluka min umaani a fa tuxramal xayraati wal manafia sëñ tubaa nee na mi yàlla def ci yow baatin def ci yow ngëneel def ci yow fadloom def ci yaw tiraangaam mu ne waaw mu ne gis nga jooju lum rëy rëy rëy mu ne ah bum la tax a doylu de bum tee bum beneen waay ba yàlla ber fa la def ci moom barke def ci moom tiraanga bum tee nga solu sa sol saw dàll dem sàkku te barke booba modeste boobu gis nañ ko ci sëñ Touba modeste boobu gis nañ ko ci sëñ Touba sëñ Touba bu muy soog a jóg amul benn wëlliw bu yeewoo senegal lu dul ni sëñ Touba jataay na ak bu fekkee nga génn àddina ñëw na ba ci sa bàmmeel ñaanal la bu benn wëlliw bu doon yeewoo fii ci Sénégal lu dul ni sëñ ngay dund ñëw na jataayoo yow wa ilaa bu fekkee génn nga àddina sëñ Touba ñëw na ba ci sa bàmmeel. nihma rijaalu lahoo majaalu ma rijaali la foo majaalu moo ko wax sëñ Tuubaa ni am nga ngëneel waaye nag wala yakun fadluka min umaani a ngëneel li nekk ci yow bu ko doyloo ba mu teelaa dem sàkku ji ngëneel ci kee nee na soo ko defee fa turamal xayraat daañu la xañ yiwu bare bare bare wal manaafi ak i njariñ wal manaafi ak i njariñ Mhm. nettali woon naa leen ni jóge woon naa benn conférence Louga di ñëw Touba jaar ci sëñ Abdourahman Mbacke Darul Mu'ti xam ngeen ko tombeek waxtu tisbaar xam nga moom tisbaar lay génn jëm ci jàkka ji fekk man julli naa ba pare dal di jaar këram mu jëm ci jàkka ji mu nuyoo jàmm sant bërëb ñu ne ñu dem ci jàkka ji ma ne ko man julli naa ba noppi dama fay jaaroon doon la siyaar daan ne ko damay sàkku nag nga sàkkul ma ci sama borom njëggal daf ñu wëlbit mu nikk sama loxo ni may nag ma sàkkul njëggal ci sama borom te kenn ku ne xam ne Cheikh Abdourahman maa ngi jàpp ne fe damitu weewa moo ma gën xellitu karawa moo ma gën man loolu laa jàpp waaye daf ñu wëlbit mu nikk sama loxo ni may nag ma sàkkul njëggal ci sama borom loolu la Sëñ Tuubaa wax wala yakun fadluka min ummaani a fa tuxramal xayraati wal manafia sëñ Tuubaa nee na bu sa ngëneel li la yàlla defal bu mu dox mukk sa diggante nga dégg ci keneen ngëneel bam teel a caa dem sàkku ca mu ne isil asuudu laysa sa intifaahi bi fadli man aasara bi tibaahi mu ne ndax aji añaan foo ko fekk ko aji añaan foo ko fekk du jariñoo mukk kam jamonanteel jamono te yàlla def ci moom barke du sa jariñu mukk aji añaan foo ko fekk ka yàlla def mu jamonoonteeg moom yàlla def ci moom barkeem yàlla def ci moom baatinam yàlla def ci moom xam-xam yàlla def ci moom secret nee na aji añaan mënta jariñu ci moom mukk isil asuudu laysa intifaahi bi fadli man aasara bi tibaahi xoola bi sëñ Tuubaa di wax lii boobakat vingt ans la am waaye xoola suñ jamono bii xoola suñ jamono bii man damaa jëlale diggante murit ak tijaan waaye ñëwal ci biir tarixatul muridiyya rek ci biir tarixatul muridiyya bu njëkkoon taalibeb maam Cheikh Ibrahima Fall buy pemte pemte ba dajeeg Cheikh Isa genn day jàpp ni li muy wut lépp ci Cheikh Ibrahima ci Cheikh Isa mii taalibeb Cheikh Isa genn buy pemte pemte ba dajeeg siñ daaru Assane Ndiaye day jàpp ni li muy wut lépp mu ngi ci daaru Assane Ndiaye mii léegi nañ xool taalibe yi léegi ki aju kër Cheikh Ibrahima ki aju kër Cheikh Ibra day maslaa rek ak nekk kër si kër Cheikh Isaa maslaa dong waaye dara te te bala nga ko woon xam ñu dem ba cëgg desatul ci guy ki aju kër Cheikh Isaa noonu kenn ku nekk fa nga nekk rek nga yaakaar ni foofa rek la naaf yi ne kay kenn ku ne sëñ Tuubaa jox na la ba nga doyal waaye yokkul dara ca lam jox ko ca des da koy gis ci plateau yi koo xam ne day ñëw di gaaro te ñoom ñoo bokk benn sëriñ buñ buñ aju dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam defal Seydina Abubakarin Sadiq ndax yàq na dara dara dara ca lam defal Omar Seydina Abubakarin Sadiq moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa ci maxarifa xam yàlla maarifatul billahi waaw lu mu yàq ca Omar Omar ñëw doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëggu ak dëggal lu mu yàq ca Abubakar Seydina Ousmane ñëw doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tabe lu mu yàq ci Ousmane ci Ababacar wala wala wala Seydina Omar Seydina Ali ñëw benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam-xam ana lu mu yàq ci Omar ak Ousmane ak euh, Seydina Abubakarin Sadiq noonu la ñu toppoon sëñ Touba mel kenn ku ci nekk sëñ Touba duy na ndab la nga ko taajal ba mu fees dell te yàqalul dara sa morom ñun ñu sob buñ dikkee di fénqale sëriñ si rek sob bay bëgg a dee rek di fénqale sëriñ si rek Cheikh Ahmad Bamba nee na aji añaan mënta jariñu ci kim jamonoon teel te yàlla def ci moom baatin mu ni waxuma la sax kañaane gam koy añaane du ca yem waaye wala yasurruhu madal asmaani siwa alikihi bila tawaani nee na du ca yem gis nga balaa bég balaa bég daa dégg ni waa ji faatu na la ilaha loolu nag ma maa ngi ko gën a gëm nag jekk gëmoon naa ko waaye maa ngi ko gën a gëm nag bi Saliou génne àddina am na ñoo xam ne nii nit nañ julli ñaari rakka ndax jàpp nañ ni luñ luñ ñàkk moo leen ko xañ wala yasurruhu maddal asmaani siwa alikihi bila tawaani man Saliou saw xaw ma ko de musu ñoo toog sax musu ñoo toog xanaa euh, léeg-léeg ma gisee ak Baye Sam mu ni Saliou Sow na barab sàngam walla nàngam waaye yàlla tax may wax sëñ tubaa nee na ahsana min al asuudi waay waay yàlla na ma yàlla musal ci añaan waay wa kullu mubqidin wasil juudi ak gépp bañ ku yàlla bind mbaa may weddi ku yàlla defal barke mbaa may weddi ku yàlla defal barke boo ne diw ñu ne ay de kooku yeewu na de nandute la de waaw waaja nee na daa dem ñi ñi mu ne ko yewwoo kooku fii ak yeewu lam mu ne woow kon ñu gis ni Cheikh Ahmadou Bamba laay e nañu biir radiallahu taala anhu ndax dani moom sëñ Tuubaa yàlla mbiram mi béralu ko ma sàmba béralu ko ma demba ndab lu set rek lay gis buy ko moom moo tax mu ne is rubbama uri fatan mu aqara maa xaaba aman qabluhu wa asra mu ne fa tall xad yabdu amaama alwabli walfadlu lil waabili laa li talli waay waay lii lu ko gën a leer waaw lii lu ko gën a leer sëñ Tuubaa nee na mbir nekkul ci ma fi jëkk ñëw mbir mi nekkul ci maa fi mujj ñëw mbir maa ngi ca tabog yàlla gi rek mbir maa ngi ca tabog yàlla gi is rubbama mu aqara maa xaaba aman qabluhu wa asura mu ni ndax bariwaane waajoo xam ni te ba jamono leere la fi ñëwoon ba jamono leeree jamono nga xam ne booba yokkoogul ñun waa jamono yokkoogul am yàlla yomb denc yàlla yomb xam yàlla yomb jamono booba la ñëwoon de bëgg li ñëpp bëgg waaye yàlla nëbbu ko ko yàlla nëbbu ko ko maa xaaba aman xabluhu yàlla nëbbu ko ko nëbbu ko ko ba benn waaye ñëw ci jamono boo xam ni jamono bu xat la jamono bu naqaree mucc la jamono bu naqaree am yàlla la jamono bu naqaree waxe la nee na nag yàlla def ca moom loo xam ni defu ko woon ca ñu jëkk ña mu ne xam nga lu ma la ci jox misaal moom sëñ Tuubaa mooy wax de mu ne xam nga lu ma la ci jox misaal ñu naa ah, mu ne waa dama ni xaw bu ñuy tuddee mësay bëndëng ak waame lu ciy ñoral gerte dugub mësay bëndëng mooy taw wicc wicc boobu nga xam ne mooy jiitu balaa waame wee ñëw kenn ku ne xam na ni taw wicc wiccal mënta ñoral gerte mënta ñoral dugub mën na koo saxal nag mën na koo saxal mu ni waaye gis nga ñortal dugub ak ñortal gerte ma nga ca waame wa ma nga ca waame wa te waame mujj ñëw de waame mujj ñëw de moo loolu sëñ Tuubaa addis yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ummati kalmatar laa yadri awaluhu xayrun am axar sama xeet bi man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa mel ni taw mu ne ab taw kenn xamul ndax njëlbeen gi mooy baaxal nawet bi wala mujj mooy baaxal nawet bi loolu la sëñ Tuubaa firiwaat sama xeet wi mu ngi mel ni taw ab taw kenn xamul ndax njëlbeen ga mooy baaxal nawet bi wala mujjaay baaxal nawet bi ndax njëlbeen mën naa baaxal mujj ñu yàq ko borom maqaamaatul xarir lu mu waxoon borom maqaamaatul xarir daf ne woon alfadlu lil mutaxaddimin mbaax daraja ngëneel am yàlla taq yàlla xeeñ yàlla mu ne amul ah, ñu jëkk rek jeex na amatut ñu jëkk ña rek fala la yem bi sëñ Touba ñëwee da koo naqd sëñ Touba dañu ko juum nga yow borom maqaamaatul xarir juum nga mu ne ko lu tax mu ne ko walaa tuxasis fadla rabbi qad ala bi si taqadumin fataj bi si taqadumin faqat fataj ala walaa tuxasis fadla rabbi qad ala bi si taqadumin fataj eh, faqat fataj ala maa ngi lay wax ni la yow borom maqaama juum nga mu naa ah, mu ne bul jël ngëneeli yàlla yi jagleel ko génération bu njëkk ba ni ñoom dong ñoo mën a baax ñoom dong ñoo mën a am yàlla mu ni déedéet yàlla moo moom ngëneelam di ko jox ko ko soob loolu ko ko jàpp réer nga sëñ Tuubaa na ku jàpp loolu réer nga wala tuxasis fadla rabbi qad ala bi si taqadumin faqat fatajhala ngëneel borom a koy joxe yàlla nañu ko jox barke moo koy joxe raanga moo koy joxe baatin moo koy joxe aju ko ci jëkk ñëw wala mujj ñëw nuñ ko acc tabam ji rek mu Cheikh Ahmadi Tijaani muy sëñ Tuuba muy si Abdu Xaadir Jilaani ñoom ñëpp yonent bi sallallahu wa sallam mooy seen wasila ñu bokk wenn wasila waaye yemuñu si it ñu moy ci muccu kaala gi waxuma sax ñoom ñii nga xam ne ñoo ay tariqa waaye walli yi nga xam ne ay walli simple rek lañu na ma yàlla baal walli yooyu sax dama ne ci muccum kaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen xudwa ba tax sëñ Tuuba ni kullu walliin soo tasabusin abad bi man arsalahu aqul ahad sëñ Tuubaa nee na walli woo fi seen muy dëngëñ dëngëñi dem mu ne ah mu ne muccum kaalag yonent bi ci la jàpp bu yonent bi teggee tànkam mu teg bosam kullu waliyin soo tasa busin abat bi say liman arsalahu aqul ahad mu ni wali boo ci gis foofu la jaar wali yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen gis ngeen bi ko sëñ Tuubaa di wax nee na yonent bi sallallahu alayhi mooy xayrul anis lil awliyaa xayrul anis wéttalu wàllu wi dëgg dëgg dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yooyu nag ku leen fi wuutu wàllu bi sallallahu alayhi wa sallam ko fi wuutu moo tax mujisa bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def mboolem awliyaa ulaahi yi kenn ku nekk day am mujisa boo doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba boo ko dee wax ki xamul baatin xamul dara ci tasawuf day jàpp ni loola moom dong la ko yonent bi beral fekk yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam defal na keneen leneen noonu la ko sëñ Tuubaa junj ci masaalik famaa yafi mujisata nabii yajuusu fi karaamaatil walli li annahu warisuhu fal anbiya xujjatu rabbina xujjatu rabbina alal xalqi hiya alal xalqi hiya sëñ Tuubaa nee na walli woo fi seen muy dem mujisa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def moom dana ko mën a def ci karaama bokk yonent bi dana lee muy ndax ñoom ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis wàllu boo xam ne martabam daraja yonent yàlla Muusa la amee fu mu ko doonee fan la ko jëlee da yaakaar nañ ca Muusa la ko doonee direct déedéet ci yonent yàlla Muhammad la ko doonee ndax yonent yàlla Muhammad mboolem maqaama yonent yëpp alayhi salaam dafa sosi ci moom moo tax ci doon Muusa mbootum Muusa bi mi ngi ko doonee ci yonent yàlla Muhammad ay gis wàllu boo xam ni fitu yonent yàlla Muusa walay amee fitam woo njàmbaaram nga njaxlafam nga nga gis wàllu woo xam ni moom la doon na ci yonent bi sa alayhi waaye ci yonent bi la ko doon ne waaye fekk na nag fit woowu ak njàmbaar googu te Muusa lañ ko xamee woon gis wàllu woo xam ni day dekkal ku dee wala nit ku feebar bu la laalee rek nga daal di wér fu ko doonne mooy ci yontu yàlla Muhammad la ko doonne waaye maqaama moomu ku ko amee woon yontu yàlla Muusa alayhi salaam mboolem daraja yonent yëpp dañoo daje ci yontu yàlla Muhammad ba tax na wali woo fi gis mu amee melaw Muusa moo tax ngay dégg sax ulama wu tasawuf naan diw Muusa yun la wala diw Ibrahima yun la wala diw Isa yun la ñi nga xamante ne nii sëñ Tuuba radiyallahu taala bañ ko sànnee ca safara wa te safara wa munu koo lakk ba ñu sànnee yontu yàlla Muusa ca safara wa te safara wa koo lakk maqaama moomu fan la ko sëñ Tuubaa jëlee mu ngi ko jëlee ci Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waaye Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moo amee woon xaala boobule. yaa naaru kooni bardan wa salaama jooju sëñ Tuubaa la ko yàlla rafaatale jëlee ko ci Muhammadu Rasulullaahi mu donne ko ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ko ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa daje ci yonent bi. bépp wëlliw boo fi gis mu amee melaw beneen yonant mu ko doon ci yonant yàlla muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonantu sàng ma ko amee woon yonantu sàng ma ko amee woon ñun nag ñu jël wëlliw yi di leen këll-këllee rek di waxtaane seeni daraja ak seeni maqaama ba noppi nag bu fekkoon ni danañu jural ragal yàlla mbaa mu jural ñu sax roy walliw boobu du am muskila waaye da ngay waxtaanee darajey walliw bi ak mbootum walliw bi ba benn waay bég ci yow ba may la million wala mu may la oto wala mu may la kër ba noppi nag moom moomu la may loolu bu subaa boo demee ca bis ba fekk ko fa yow mu waxtaanee karaamay walliw bii ba waa ji woo la téléphone ci plateau bi may lay million wala oto wala kër waajooju maa ngi lay waatal ci yàlla ni am na ay emploi yoo xam ne fayagu leen lekk na seenu alal lekk na seenu ñaq ah allahu akbar ba noppi na nga yaakaar def nga dara defoo dara dara nga defut loolu la ñu alquran junji afaman xaasaal addisi tajaboona wa tadaakuuna wala tabkuuna suñu borom nee na ah a ngi nii di waxtaane karaamay wi ak seeni daraja ak seeni maqaama ngeen waran cee jooy bu ngeen noppee au lieu que ngeen jooy waaye yéen a ngi nii di ree ak a xaqataay yëmu leen ci sax wa antum saami doona bu ngeen jógee yéen a nga ca baal ya yéen nga ca yëngu leen yéen a nga ca fa ñuy wa antum saami doona mu ne di leen waroon bu ngeen waxtaanee karaamay wàllu yi ni wàllu sàngam moo def nangam wàllu sàngam moo def nangam mu ne lam la waroon na jural mooy fasjudoo lillahi wahbuduhu la nga ci war a jële mooy boo fa jógee danga war a jaamu yàlla di ko sujjootal foo toll ndax lu tax gannaaw yow nee nga wàllu bii nga xam ni moo julli ci géej gi mooy sa yaakaar loo ca war a jële ndax da nga caa war a jële fittos rek ak reeqaqtaay daal ni saab sëriñ amul morom daal di million déedéet la nga ca war a jële mooy waxtu julli waratu laa raw waxtu julli yow waratu laa raw yow loolu nga ci war a tiire comme leçon arab yi nee nañu laa yastaqim sillul axwaj laa yastaqim sillul axwaj arab yi dañuy wax ni gépp garab gu dëng ñu ne a ah, mu a takk ndeer ba day dëng ni garab ga gis nga sëriñ boo fi gis ab taalibeem mooy ab takk ndeeram kon yow ginnaaw sab sëriñ a gën a jub ci sëriñ si sab sëriñ a ëpp daraja ci sëriñ si waaw lu la tee gën a jub ci nit ñi ndax yow yaay takk ndeeru sëriñ bi kon li muy tekki mooy boo dëngee rek xamal ne yow doo takk ndeeru sëriñ bi jotewul ak sëriñ bi dara ndax sëriñ bi daa jub xocc ab takk ndeeram daa war a jub garab gu jub takk ba day jub xocc moo tax arab yi di léebu naan laa yastaqim sillul ahwaj <coughs> garab gu dëng a ah, faawu ba dëng waaye yow nga sa sëriñ a gën a jub ci sëriñ ba noppi nag yaa dàqatooñ ci way tooñ yi sa sëriñ a gën a maandu <coughs> ngeen bal ma sëñ Tuuba radiyallaahu anhu nee na benn bis daf doon dox am ànd ak taalibe yi mu dajeek benn waay am kenn ci taalibe yi topp ci sëñ Tuuba am ku dajeek ñoom leen waaye ndax amul nit ku leen fi romb nee ñu mu am kenn ci taalibe yi ko ah ten gàtt ci ñuul mu ni waaw mu ne ko ah kay daje nañu moom sëñ Tuuba ni ko na nga wër waaja ba gis ko jéggula ko ba mu jégg la baat yooyu nga wax muy tam gàtt te ñuul mbaa boo ko gisul bul dellu si fi man waaw ku kuy kuy kuy lijjanti lu mel noonu kooku dana nangu kuy xas wàllu yàlla mbaa nga di ko tànc mbaa nga di ko suufeel mbaa nga di ko suufeel wax nañ ko ci Alaaji Malik radiyallahu anhu nee ñu war naw fasam fas yu yóotu toolub jàmbur dagg ci aw gub mu taxaw li dootul dem mukk tànk borom fas wi borom tool bi ñuy ba mu bale ko àq gub bi fas wi dagg ci ci tool bi waaw ku mës gis lii yow nga aju ci kooku yaakaar kooku ba noppi di wax lu ñaaw nitu yàlla ci réseaux sociaux yi ndax lan ndax nee nga daa am ku tuutal sa sëriñ kenn mësu koo gis su borom ni nit yàlla yi li ngeen ci war a jëlee du yéem rek li ñuy wax li ñuy def karaama yooyu ngeen yéem ko rek afa man xaasal addisi taajaboon waxtaanu gaa yi ngeen di yéemu rek di maye million rek waa ji waxtaane karaama yi benn nitu yàlla nga may ko fukki million fekk boobu boo demee kat sëñ Basiru Mbàkke xel kom mu nga yor téeméeri dong di leen jàngal fi sabilillahi amul fu mu leen dëkkal fu baax sax moo ne xam nga ko de lu tax nga may waaji lii mooy karaama yi muy wax boo demee booba day maam war xam sa diine wax ci fiqul islaamiya la sëñ Tuubaa wax firil la ko ci wolof yëmu ci mu wayaatal la ko ci wolof amul oto bu war ah, kon yow li ngay def yàlla tax li ngay def yàllaa tax waay waay waay seetaat leen lii <coughs> kii karaama rek la wax te karaama yi muy wax yow mënoo ci benn mënoo julli ci géej gi mënoo naaw ci jaww ji mënoo bind téeméeri xalima dara nga ci mënul ci karaama yi ñuy wax waaye fii la sëñ bi julli woon nii ko julli woon loolu man nga ko sëñ bi nii la maandoo woon nii la jàppe woon jaamuram nii la daan jaamoo yàlla mën nga ko léegi ki wax loolu moom ki wax loolu moom mënoo ci moom tikini ki wax loolu mënoo ci moom tikini ki nga mën ci moom tikini daal mooy ki nga xam ne moom day wax rek karaamaat yi <clears throat> suñ borom ni xoolal ma lii rek gaa yi daal ci ay karamaat la ñuy yéemu rek wa tadd akoona ña ngay xàqataay wala takkoona te dañoo war na jooykat te jooyuñu wa antum saami doon boo demee bu de nuit ba fekk leen fa wa antum saami doon boo demee boîte de nuit ba ñoom ñu bëggoon ci wa kiy waxtaane karaama bay jooy di maye alal nee wa antum saami doon booy dem boîte de nuit fekk leen fa suñu borom ni waru woon a demee noonu de ñu ne ko nan la waran demee mu ni fas judoo lillahi wax but wax do fasjudu lillahi wahbudu ñu waroon a am mooy rey seen bopp ci jaamu yàlla ginnaaw yow ki sa sëriñ te nee nañ la fii la jaar dangaa war na rey sa bopp ci jaamu yàlla maa ngi leen di laaj karaamay sëñ Tuubaa ku ko gën a xam maam Cerno Ibra Faati Mbàkke ku ko gën a xam na ma ko wax man de xaw ma ko ku gën a xam karaamay sëñ Tuubaa ak baatinub sëñ Tuubaa ku gën a xam maam Cerno Ibra Faati man xaw ko waaye dama leen di laaj sëñ Tuubaa yóbbul na dara si Cerno Ibra ci jaamu yàlla ci njub ci maandu ci jàpp njàmburam ci dimbale kum tane baax na baax na bisa ñu ñëw alquran nee na man yàlla maa bind te yëmalewuma loolu kenn weddiwu ko yàllaa bind te yëmalewut ni yonent yi ëppante ay daraja ak i maqaama noonu la walli yi ëppante ay daraja ak i maqaama waaye nag bu tax nag nga xas beneen walli waxal daraja yi walli boobu rek ak i jaar-jaaram te yem fa alquran lu mu wax tilka rusulu fadalnaa ba'dahum ala ba'din minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dahum darajaat loolu kay wér na yonent yi li ñuy baax baax te dul yàlla da leen a gënale yëkkati daraja yi ñii teg ci kaw ñii muy ndax am na yonent yoo xam ni baral naa leen loxo wax ak ñoom jabet ne amee ñuy dégg Moussa alayhi salaam moom la yàlla masa waxal mi amee jebet jebet muy dégg te waxe yàlla moo dàq dugg àjjana kàddu yàlla moo dàq dugg àjjana mu ne am na ñoo xam ne maa yëkkati seeni daraja teg ci kaw ñi ci des waaw ndax tax na mu jur benn problème mas ngeen a dégg yont yàlla muhammad di waxtaane dara dara dara dara ci baatinam ci li ko yàlla defal ba jël boppam teg ci kaw Moussa ni Moussa du dara mas ngeen ko dégg mas ngeen dégg yont yàlla muhammad di waxtaane li ko yàlla defal keroog ba mu jógee al isra wal mihraj gis ngeen fenn fu mu ni yàlla defal na ma nangam tànc ca Moussa wala mu suufeel ko ca wala Isa alayhi salaam gis ngeen ko ci waaw lu tax ñu bëgg ko dama ne leen di laaj mas ngeen a gis fenn fu sëñ Tuubaa wax ba junj luy nuroo suufeel benn wàllu ci wàllu yàlla yi da koo bañ ba bu leen di tudd sax sama sëriñ la leen di wooye sama sëriñ ci mbindam yépp comme ci tudd ci nit yàlla yi sama sëriñ lay wax Abdurahman al Axdari mii rek bi muy bindaat téeréen bi bi ci accès lu mu wax dafa dafa dafa tasxiir boppam daan ni kii moom ma gën lu tax mu gën ma muy ndax moo ma njëkk ci lii moo ma ko njëkk a def moo ma njëkk a bind ci fiqul islaamiya loolu nit yàlla yëpp noonu la def mooy dañuy tasxiir seen bopp kon nag yow boo ñëwee bëgg a fénkale dara jëru ko dara dara dara ko alal jëru ko bëgg jëru ko dara jëru yàlla xam na ko yàlla xam na ko dara jëru ko dara jëru wàllu yàlla yi kenn wérantiwul seeni daraja ak seen ëppante nañuy daraja ñi asamaan ak suuf rawantee waaye loolu ci tabu yàlla gi rek la aju de ak kenn ku ni fa nga féete suñu borom rabbi sit wa jàll mhm. rabbi sit wa jàll waaw sëñ Tuubaa li ko yàlla defal am na ci loo xam ne nii ay laaj ñu ñu ko tudd sax mbaa mu laal ko waaye boo ko waxoon it te yem ca rek xëy na ñam maandu mën naa bañ a benn problème maa ngi fàttaliku ay weer ci ginnaaw am na mel uh, mbokk mu nekk ci réewi arab yi di jàng daf ñu mas yónnee benn benn audio bu ñu dagg Baye Sam bi ca wax ni moom gis na fu sëñ Tuubaa bind wax ni yàlla yëkkati na ma teg ma ci kaw yonent yëpp mu yónnee ma ko. ni ma xoolal waxi bokkaale ji mu wax te nee na moo ko gis ak bëtam waxa waxa wax ba noppi ay commentaire yu bari ma tontu ko ni ko yow day dangaa xamut lii bokkaale maanaam ma ne ko te sëñ Tuubaa mi wax wax ji fi mu ko tegit ñu jàng tasawuf te xam ko mun ñu cee dindi virgule ma ne ko wax ji bàyyi saam wax ndax boo bàyyi saam ci wolof la ko wax nii rek waxu bayit ba daa wax ci wolof noonu rek dem ma ne ko wax ji mu wax sëñ tubaa ko bind sëñ tubaa moo bind ci xalimaam ni kataba allahu tabaraka wa taala anna katiba haazil urufi sayyarahu allahu tabaraka wa taala fawqa al anbiya wal mursalin ma ne ko sëñ tubaa ko bind man gis naa ko sëñ Tuubaa ko bind am na benn conférence bu amoon liberté 6 kër soxna Ndey Wàdd booba maag Baye Sam ñoo bokk yan bi yàlla dogal gu takk saanee da koy defal waxtaan bu muy def waxtaan wi ma doon ko laaj ci katabalaahu tabaraka wa taala yi sëñ Tuubaa bind ku déglu wax kaset ba danga ko dégg ma ne ko waaw li sëñ Tuubaa di wax naan kataballahu tabaraka wa taala anna katiba asil urufi ah déet bi mu ne kataballahu tabaraka wa taala anna baysilal aram tarfahu malaikatu ila Tuubaa wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu ci sëñ Tuubaa jublu ma laaj ko ko ku déglu kaset bi di ko dégg mu ne ma ew waaye ndaw yow sëñ Tuubaa waxi waxam nga ñëw bëgg lu koo laaj dañ ni waaye kataballahu yooyu de man xam naa ci loo xam ni gis naa ci loo xam ni murid yi sax duma leen ko wax murid yi sax du leen ko wax daal ni Cheikh Abdoulaye nee na ma ci woon nangam ak nangam Cheikh Amadou Guèye Fatma nee na ma nangam ak nangam ca yem ak yem ca leeral waaye bi conférence bi jeexee bañ delluwaat ci kër soxna Ndeye Wade mu dugg ci néegu biir bi woo ma na ñëw mu wax ma ca loo xam ne nopp bu ko déggu ruy nopp bu ko déggu ruy mu ne ma yow sa laaj bii kenn du ko laaj ci mbooloo sëñ Tuubaa moo ne yàlla bind na ca law ul mahfuus li waa ji bind mbind mii te mooy sëñ waa jooju man yàlla mujj naa di yëkkati darajaam di yëkkati darajaam ba mu fawqa anbiyaahu yeeg mursaloon yi loolu sëñ Touba ko wax ba noppi nag sëñ Touba da koo signé wallaahu mm, alaa maa naqul wakiilu wallaahu alaa maa naqul wakiilu ko signé lii ma wax nii wallaahi yàllaa ko seede waaw ma ni ko xam sañ Touba ci ragal yàlla dana neenal yàlla dana yàlla. mooy li ma tontu woon mbokk mi ma ni ko moom ki ma waxoon lii ba tey de ma ni ko sëñ Touba boo gisee mu ni yàlla jiital na ko ci lépp li yàlla sàkk xam nga lu ko waral mu ni ah ma ni ko yéen da ngeen dul xam ni wàllu yi bu ñuy wax <clears throat> ci daraje rasulullahi la ñuy taxaw di wax loolu ngeen dul xam wàllu boo fi dégg muy wax ni Cheikh tiijaan Tidiane waxee ni radami ala raqabati kulli waliin man Cheikh Ahmad Tidiane sama mbëggu tànk bi teg naa ko ci loosu wàllu wu ñu tudd dina tudd ba mu koy wax fan la nekkoon mu ngi toll mi ngi nekkoon ci mm, maqaamam rasulullahi sa alayhi wa sallam nekk waarisaam te jamono booba foofa taxaw di wax ci maqaamam yonent bi lay waxee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu yàlla bind mbëggu tànkoom mu ngi ko teg ci sa loos wi. ndëggu tànkoom mi ngi ko teg ci sa loos wi bi mu wuutoo yonent bi ne nekk waarisa moo tax mu sañ a wax loole sëñ Tuubaa it boo gisee mu ni yàlla jiital na ma ci lépp lu yàlla sàkk moo di dafa taxaw ci maqamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du d'accord nañ ni mooy sayyidil awwalin wal axirin mu ne ma waaw mooy sayyidil awwalin wal axirin mooy sangu ñu njëkk ak ñu mujj ma ne ko yonent boobu nag alayhi salaam sëñ Tuubaa dafa ñëw nekk jëwrinam di ko tagg di ko tagg di ko tagg jël garaat yi ko yàlla ràngoon di ko ràng sëñ Tuubaa mu di ko tagg mu di ko ràng garaat yi ba yonent bi di seetul benn garaat lu dul ni maqaaw mooma sëñ Tuubaa yegg na ca ci doon yonent bi sallallahu alayhi wa ci saahir ak ci baatin ba mu dese ko menn maqaama rek te mooy photo yëpp sayyidil awwalin wal axirin nekk sangub lu yàlla bind lu ne menn maqaam moom rek dese woon sëñ Tuubaa ma ne ko sëñ Tuubaa continuer di liggéeyal yonent bi di ko tagg ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni suñ borom ahmadul xadim day li ma yoroon lépp jox naa ko ko te terewul mi ngi continuer di ma wax loo xam ne mi ngi daw sama yaram ba mënatumaa toog léegi luy pexe suñ borom ne ko ah kay pexe am na mu ne ko luy pexe mu ne ko yaa ngi fàttali ko maqaamam mahmud du maa la waxoon ci alquran ne wa min alayli fa tahajat bihi naafilatan lakka xaafa an yabxasaka maqaaman mahmuda guddi gi na ngay jóg di dóor ay rakka di sujjóot bu ko defee xëy na man yàlla danaa yëkkati sa daraja ba yóbbu la ci maqaama mahmud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni képp koo xam ne nii ndax dañ ne maqaama mahmud mel na maqaama dong la yonent bi ne képp koo xam ne dégg nañu nodd ba nodd ga daanu nga daal di wax ni ñaanal ma yàlla ma jot ci maqaama mahmud comme mën a doon bi yow man ma maa lay ramu looloo tax bu ñu nod daan noddale daan kii bu ñu noddee ba daanelu noddu nga dégg ku wax ni nga dégg ko wax ni noo ngi seede ni ginnaaw bi ñu seedee màggu yàlla gi ak sañ-sañam <coughs> ngeen baal ma ak coobareem ñu ngi ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yéege ko ci maqaama mahmud ginnaaw bu ñu noddee mu ngeen dégg ñu di ko wax ma rabba asi dawati tamma وصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابعثوا مقاما محمودا الذي ربنا ما خلت هذا باطلا mu ne yonent bi ni képp ku ma ñaanal maqaam moomee ba ma jot ci yowmal xiyaam maa lay ràmm sëñ Tuubaa di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi maqaamam sayyidil awwalina bi mu toog yàlla ne ko ah kay pexe am na mooy wàccal maqaamam sayyidil awwalina wal axirin jox ma mu toog te nga ñëw fii ci maqaamam Mahmoud. bi sëñ Tuubaa di nett li wax ji am na kenn ca taalibe yi ku seet seet xaatu ne ko wallaahi mbàkke keroog mag yi gën a mag keroog mag yi de bi mu toogee ci maqaamam sayyidil awwalina wal axirin nekk sangub jaam ñëpp nag ci la sooga a sañ wax lii wax na ko ci beneen beneen bayit nee na kataba allahu tabaraka wa taala fi law il mahfus anna katiba hasil urufi qaddamahu ala jamil alamin ci bind mbind nii yàllaa bind ci lawul mahfuus ni man sëñ Tuubaa yàlla jiital na ma ci lépp lu mu sàkk lépp lu mu sàkk rek ala jëmil alamin la wax loolu ñu jàng tasawuf te xam ko duñ ko weddi buñ ko weddi ndax dañoo xam ne sëñ Tuubaa ci maqaamam rasulullahi la taxaw di wax te rasulullahi mooy sangu lépp lu yàlla bind ñun <coughs> baal ma ci maqaamam rasulullahi la taxaw di wax kon wàllu yi dañuy taxaw ci maqaamam yonent bi bu ñu doon na yonent bi te kat sëñ Tuubaa li gën a garaaw mooy mboolem wax yooyu katabalaaw yooyu muy def bu ci dala wax ni wallaahu allah ma wax jii wax yàllaa ko seede mooy témoin bi yàlla laa jël comme témoin <coughs> yàlla laa jël comme témoin <coughs> kon nag nañ nangu nit yàlla yi li ñuy wax ci yonent yi lañ ko doon ne alayhi salaam bu yàlla dogalee nga yem ci wax ñu ci yàlla te xamoo lu mu doon maandu ca bul weddi bul diingat bul suufeel ah dana waral mujj gu ñaaw de laa qadarallah wala saman dana waral mujj gu ñaaw de laa qadarallah wala saman nitu yàlla yi liñ am yàlla leen ko jox te yàlla kattanam yëmul fenn sañ-sañam yëmul fenn kon nag bul ko wutal qaayda boo xam da nga naan yàlla fii la yem yàlla sañ te def yàlla amut lum sañut yàlla amut lum sañut kon nag da jëfandikoo addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu Muusa radiyallahu anhu bu mu laaja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayul islam afdal sallallahu alayhi wa sallam dane ko man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi l'islam ku ci gën ñi ci ne ci biir l'islam doomu aadama yi nekk ci biir l'islam ku ci gën yonent bi ni ko ki gën ci l'islam mooy ki nga xam ne nii fexe na ba làmmiñam bii du ci yàq derus cam loxoom bi du bind ci pilim lu yàq derus cam moo tax doo gis fenn fu sëñ Tuubaa di bind fu muy waxee dara ci as cam lu ñaaw doo ko gis ci Seydi Alaaji Malik doo gis ci Cheikh Madi doo gis ci kenn man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi rawatina nag nitu yàlla ci boppam nitu yàlla ndax effort bi nga def ba fexee mokkal karamaatul awliyaa yi maqaama mu nekk wala bayit bu neex bu nekk nga fexe koo mokkal moo ne boo ko defoon ci fexe ba alfiqul islaamiya bi nga def ko ci nit ñi it kat ca la ëpp tuyaaba ndax diine ji ñaari tànk la war di doxee mooy basiir ak nasiir waaye boo jëlee basir rek bàyyi fa nasir yaa ngi yàq lu golo mënut yàq ci tool boo jëlee nasir doo ngit bàyyi fa basir yaa ngi yàq lu gën a yàqul ci tool da ngay boole ñaar yi <clears throat> basir ak nasir <clears throat> li mu ko jënd nag jëru ko almaalu wal banuuna sinatal ayaatu dunia suñ borom nee na wal baaxiyaatu saaliaatu de xayrun inda rabbika sawaban wa xayru amala <clears throat> wa xayru amala suñ borom nee na lu ngeen ci mën a am lu ngeen ci mën a am yàllaa ko gën lu ngeen mën a am ci xeetu teraanga ci wax yi ngeen di wax mu ne amul yàllaa ko gën de yàllaa ko gën sallallahu alayhi wa sallam nee na woon nag la yaatiina ala naasi samaanun laa yubaalil mar'u bima axasal maal am min xalaal am min xaraam yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na bisa ngi ñëw boo ni jamono ngi xam ni doomu aadama yoonam nekkatul fu alal di dikkee nu alal dikkee baax na nu alal dikkee baax na yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nit ñi dañu àgg foo xam ni nu alal dikke baax na seen yoon nekkatul ci nu leen alal di dikke kon nag bokk yi alquran nee na wala taxfu ma laysa laka bihi ilmun ndax inna sam wal basara wal fuwaada kullu ulaayika kaana an u masula suñ borom nee na moytu leen di jéemal luñutu di jéemal luñutu xebla su nitu yàlla ngir waxtaane ko di jéem a luñutu négatif nit yàlla ndem nit yàlla dana am lu négatif di ko jéem a waxtaane mu ni ndax yowmal xiyaam nopp bi daan déglu bët bi daan xool xol bi ko daan xalaat ñoom ñëpp lay boole taaj laaj leen de yàlla dana laaj waaw yow lan moo tax diw sàngam ba mu toogee ca plateau ba di xas sama walliw ak di ko suufeel ak di ko tànci nga doon ko déglu lu tax muy inna sama wal basara lu tax nga ko doon seetaan lu tax waxoo ca wal fuwaada lu tax ba nga noppee sa xol bi gëm ko nangu ni diw mii li wax dëgg la <clears throat> nga nangu ko lu tax nga nangu ni diw mii li mu wax ni wàllu sàngam ko suufee daraja la lu tax nga nangu ko ah yi daal day na waar waaw waaw sëñ Moodu daal ñu yemale foofu waxtaan wi incha allah jeexul waaye weneen yoon mën na am ñu fi yàlla bàyyee danañ ci dellu si waat ah li ñu doon wax nag diinu a man ñoom ñëpp kenn ku nekk li nga am yéene naa ko li nga am yéene naa ko yàlla xam na ko te bu ma soñoon mu dolliku ma soñoon mu dolliku ñoom ñëpp laa ko yéene ñëpp laa ko yéene waaye nag ak diinu an nasiha am na ñoo xam ni ñu ngi dégg te xamuñu ni mu demee ñu ngi dégg te xamuñu ni mu demee même sëñ Moussa Ka rahimahullah moom mi waxoon wax jooju te jamonoom taalibe yi ñooña tontu woon nañ ko booba nag dañ ko médiatisewul média amul bu ko mën a médiatise waaye boroom xam-xam yi fi nekkoon te xam dara ñoom tontu wuñ ca. ndax xam nañ ni sëñ Moussa Ka maqaama buñ taxaw di wax Seydina Xalaaj lu taxoon ñu rey ko Xalaaj lu taxoon ñu rey ko mooy daa waxoon ne ana al xaq ñu ngi noot takku sànni la xawla wala quwwata illa billahi al azim la xawla wala quwwata illa billah mu ne Seydina Xalaaj ana lan moo taxoon ñu rey ko mooy daa xëy rek ni ana al ana alxaq alxaq mooy kan mooy yàlla si Abdou Xaadir Jilaani nee na Seydina Xallaaj day bu ma jamonante woon ak moom dafa tërëf bu ma jamonante woon ak moom danaa ko jàpp yëkkati waaye booba jamono wontuwul koo xam ni mën naa comprendre li Seydina Xallaaj di wax mu ne moom Seydina Cheikh Abdou Xaadir Jilaani su ma jamonante woon ak moom danaa ko li mooy danaa ko yëkkati ci tërëf boobu mu tërëf yonent yàlla Muusa lu mu waxoon yonent yàlla Moussa daa toog ba yàgg mu dégg genn kàddu gi bàyyi ko ca taatu garab ga naan ko innani anna allahu laa ilaha illa ana fahmud nii wa aqimi salaata li dikr est ce que garab gee doon wax waaye kàddu gi min jaani bi sajar mu ngi bàyyi ko ci wetu garab gi muusa kàddu gi mu koy déggee ci taatu garab gi mu dégg ku ko naan muusa man may sa borom man maay yàlla jaamu ma taxawalal julli ngir fàttaliku ma est ce que garab gaa doon wax déedéet yàlla ab làmmiñu garab gi di ci wax ñi nga xam ne dañuy fanaaw ci yàlla noonu la ñuy demee léeg-léeg dañuy fanaaw ci seen borom ba nga xamante ni suñ borom ay waxee seenu làmmiñ waaye du ñoom moo ne léegi jamono fii dina ko de léegi yaa ngi nii boo demee ci fajkati jinne yi dañuy wax ni waa ji jinne ji moo àbb làmmiñu waa ji di ci wax ñuy dóor waa ji pour jinne ji génn nga xam ne dóor yi jinne ji ci boppam lay dal jinne ji di wax ci làmmiñu waa ji kon suñ borom bu abbee làmmiñu ab jaamam di ca wax yow mi nga xam ne nii yàlla mayu la nga mën a xam mbóot moomu ak secret boobu la gën mooy maandu ci léegi nag bu fekkente ni day réew moo xam ni atteb sariya moo fa am xokkumu sariya boobaa moom dañ koy rey rek moo tax ñu ni fuqaaw yi kii ulamaaw tasawuf ni ñu rey sayidna Allah bu yowmal xiyaamee bu suñ borom seetee seen mbir gis ne bi ñuy rey xalaaj ci àndal xaq ji mu wax bu fekkente ni jubluwuñ ca politique waaye dañ caa jublu aar sariatul muhammadiya xam ne loolu kenn waru ko wax ndax mën naa jur leneen ci umma bi bu fekkee ne loolu tax ñu rey ko ñoom duñ ci am benn bàkkaar waaye si sayyidna allaaj mi ko wax bañ rey ko moom àjjana la jëm directement àjjana la jëm directement ndax li la ko xamal mooy dañ ko reye ba na fi ba ko ba jël doom bi jëri ko dex gi nga xam ne moo daan bëbb ba tax ñoom ñu mën a bay mën a def seeni kii dex gi at moom a daal lànk ba ñu bëbb daal lank ba ñu bëbb fekk na xalaaj li muy wax dëgg la ci moom xaala bi mu toll Seydina Cheikh Moussa Ka moom li doon wax dëgg la ndax xaala ba mu toll xaala bi mu toll ñu si Abdou Xaadir Jilaani daana toog ba yàgg mu ni man maa yàlla ana al xaq bu xaala bi jeexee ci moom bu ko ko taalibe yi nettalee day wax ne bu ma ko waxatee jël leen jë jëray ma waaye su ko waxee mënuñu koo rey mënuñu koo rey xam nga lu sëñ Tuubaa wax radiyallahu anhu nee na waliya xaada sirran xaaba an xayrihil mu yi yàlla dénk na ma sekkare boo xam ni ku dul yàlla mi ma ko dénk ak man sëñ Tuubaa mi ko dénk xamoo ko léegi boo jëngul tasawuf da nga naan waaw yonent yi kon xanaa xamuñu li yàlla dénk sëñ Tuubaa waaw waaw lii sëñ Tuubaa ku dul Muhammad Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ko xam nga fu sëñ Tuubaa taxawoon bi mu koy wax mooy sëñ Tuubaa dafa doon yonent bi sallallaahu alayhi wa ci saayir ak ci baatin yonent bi sallallaahu alayhi ba ko suñ borom recevoiree da koo xamal ñetti xeeti xam-xam ni ko benn xam-xam bi am nga droit maanaam benn xam-xam bi droit la ci yow maanaam force la ci yow nga xamal ko amatunaas bi yëpp loolu dafa war ci yow waajib la te mooy sariya ak lépp lu aju ci sariya sañoo ko nëbb kenn muy benn mu nekk beneen xam-xam bi ci des nag loolu moom yaa yore sa cëggal ñay koo gis te wóolu ko tam doy la te nga yéene ko ko nga xamal ko ko ku ne doyul nga téye sa xam-xam mu ne ko waaye gis nga beneen xam-xam bi ci des xaraam na nga xamal ko kenn man yàlla mi la ko wax ak yow mi ma ko wax faqat loola la sëñ Tuubaa doon na ci Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam moo tax mu sañ wax ni yàlla dénk na ma moo xam ne ku xamu ko waliya xaada sirran xaaba an xayril mu yi du na feneen ni am feneen fu wax ca xasidaam gële bi mu ne maa ngi koy fàtte ñu wax ni xaaba an kulli wali suñu borom dénk na ma moo xam ne benn wali xamu ko benn wàllu xamu ko kon nag mbir yi nañ ko teg foofa nañ ko teg foofa te bañ koo teg ci di weddeekat di nga tante te xam ni nit yàlla yi dañuy taxaw ci maqaamam rasulullahi di wax te ñun ñëpp nangu nañ ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayidul awalin wal axirin mooy ki yàlla gënal ci lépp lu mu sàkk wala ñu donn mbóotam donn sekkereem nekk seen waarisa kon nag nañ ko jàppe noonu te bàyyi tuutalante bi ak waxante lu ñaaw li man nag laaye bii rek laa ci jublu yéen ñëpp laa yéene jàmm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu defal tawfiqul aadi wërsëgal ñu mu nangul nit yàlla yëpp wërsëgal ñu mu nangoo topp seeni ndigal jaar fañ jaaroon suñu kemtu lay kàttan yéene ñëpp jàmm bu ñu wooyatee ci télé yeeg rajo yi ñu wax jàmm ñu wax jàmm ndax alquran dañi kalimatu tayiba dafa mel ni sarax daa mel ni sarax su mag ñii kenn gënu leen a xam nit yàlla yi waaye doo ci dégg kenn ci ñoom kuy wax ba tànc ci kenn mbaa mu ci kenn amaa nag waxtaane sa mbootum sëriñ ak sa darajey sëriñ loolu dara niwu ci wax dëgg yàlla dara niwu ci dara niwu ci wërta jurit nag benn problème waru koo jur waru koo jur de ah rawatina kii fi nekk alxalifa Cheikh Muntaqa nga xam ne li xale yi wax naan sëñ Tuubaa dee ci xol bi na ma ko waxe woon ni sëñ Tuubaa dee ci sama xol bi Cheikh Muntaqa sëñ Tuubaa dee ci xol bi waaye mas ngeen koo dégg mu suufeel benn nitu yàlla benn benn te wallahi bu sëñ Tuubaa dem suukar dañ naan bu sëñ Muntaqa dem soow seey na ca bas mënoo tolee na xàmme boole naan mbaa boole tur rek yàlla na ko fi sama borom yàggal te sàmm ko waaye bis bu nga dégg mu ni lii wax nag yàqul dara yàqul dara yàqul dara ci jaamu yàllaam yàqul dara ci gëm yàllaam yàqul dara ci tawxiitam waaye yàllaa ko may sëñ Tuubaa nag Tijaan Bay nag sañ naa wax loola waaw kon kay où est le problème ngeen baal ma ñu wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi l-aaxirati xasana wa qinaa azaaba naar rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idh hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahma innaka anta al-wahhaab rabbanaa ighfir lanaa wa li ixwaaninaa allaziina sabaquunaa bil iimaan wa laa tajal fii quluubinaa qillan lillaziina aamanuu rabbanaa innaka ra'uufun rahiim rabbanaa zalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna mina al-xaasiriin yaa man ajaaba man istajaaba ab li ijaab fi saa nidaayi yaa man ajaaba man istajaaba ab li ijaab fi saa nidaayi yaa rab yaa arhamar raahimiin allahuma irham ummata muhammad allahuma aslih ummata muhammad allahuma farij an ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ساداتي